asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru koor wi nu nekk di leen balu xaq di xam ne it ne topp ma kenn xaq di ñaan suñu boroom mu may nu wér man ak tal ba nu mën a mottali ndigalam lii waaye nu def ko ci biir ngërëmam nu teewe ko yaat yu bari ma dikkaat nag di fàttali rek sama bopp di fàttali bokk yi ci jamono ak fi mu toll ak doxinam ak ana fan lañ ci war a taxawe ak naka lañ ci war a jàppe àdduna nag doon loo xam ne yàlla dañu fee indi ngir nu jaamu ko waaye fàggu fi loo xam ne it bu ëllëgee ba nu dajee ak moom buñ demee man ko faa fekk te muy lu gën ci nun te gënal nu loolu nag ana lan moo koy maye mooy yitte yitte pas-pas ak takku ak fas yéene di dox jëm ci kanam ñu toll ci jamono joo xam ne nag coow yi ak wax yi bari na lool ba ku moytuwul da nga fi nekk wala boog dana fi nekk ba jóge fi te du nekk ci ak way wala du def lu koy mën a jariñ fa mu jëm ngir coow lu jóg buy goow leneen coow nga fa suufam di jolli may waxe nag ci daara joo xam ne ak njàngalem koo xam ne mooy Cheikh na Ahmad al Khadim mi koo xam ne ak jotam bariwul woon dara nanu moytu jot gu bari nanu moytu lu nu amalul njariñ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy wax ne min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani toog yoxoy nee nit war nanu di ko moytu bu baax a baax nañuy moytu di rëyal lu tuuti waaye nañuy moytu itam di tuu di di di di tuutal lu rëy ñaar yooyu day ak yàqu mën na caa jolle goo xam ne moo xañ ku waroon a am ak jox ku wërtoon a am te sax jox ku wërtoon a am li muy ñàkk ñàkk tege ci aw yoon moo te ne fuuf xañ ku waroon a am bay bayal itam ak niig niigal bari na loolu moo koy yàq lu nu war a def nañ ko def ca saasa bu dara amee loo xam ne leer nanu ne lii bu jógee du jëm kër bala koo ñëpp yëg wala bala koo ñu bare yëg war nañ koo yamale wax ca lanu ca war a wax ngir wolof de dafay faral di wax naan yaari matu ko yoo boole mu ëpp ko dafay waxit ne àddina yetti xul yi moo ko yor mooy xuli asamaan xuli boroom kër ak xuli cin dafa mel ni nag dañoo ittewoo rek liy dem ci cin li muy xuli cin li waaye boroom kër bi lam waroon a taxawee dëgg-dëgg ndax talati na ko xuli asamaan it mooy li nu yàlla digal ak li mu nu tere ñu war caa def suñu kem kàttan bañ a dugg ci lu mu diglewut waaye di góor-góorlu it ca la mu digle Cheikhna Ahmad al Khadim nag bokk na ci am njàngaleem lu nu mën a gën a jàng ci moom mooy nawloonte ndax doomu aadama kat yàlla moo ko teral te nit saa boo ko nawloo faaw mu wekk la waaye nit saa yoo ko xeebee bu la yabee it bu mu la bett ci wàllu dëkkin ak nekkin nag bi mu sancee daaru salaam bay dëgmal tuuba bindal nañu ñaari téere muy matlabul fawzayni ak matlabu shifaay benn bu ci nekk muy bu jëkk bi nit ak la muy soxla ca fa mu dëkk ca na muy dëkke ña muy dëkkal naka la koy defe ak pexe ya muy amee yépp ak jàmm ak dëkkandoo ak teeyaayu dëkk ba muy matlabul fawzayni matlabu shifaa yi muy lépp loo xam ne dafay mën a indi gàllankoor ci nit ki ci wàllu tawat moo xam tawati yaramam la wala tawati am xelam la wala tawati pas-pas la wala tawati xalaat la wala wala wala lépp loo xam ne luy mën a gaar nit ki la mu tënkal ñu ko ci yaar yooyu ci Matlabul Fawzayni képp ku jóg ngir taxawal dara wala nga jóg ngir jiite aw nit la nga war a jëkk a làmboo mooy jayaate wala ay taggaate warulaa fàbbi mukk ba tax ngay bàyyi loo waroon a def wala ngay def loo warutoon a def te la nit ki war a njëkk a def mooy xamlu bu xamee ba noppi mu jëfe ko sëriñ Tuubaa nag tànnal ñu ci yu bari lu nekk mu seet da ci gën a digg doomu mu tànnal ñu ko leeral ñu ko ba mu leer nañ waaye lii di matlabu shifaa yi fekk na ma waxoon bu yàgg ci jullit ak mbokkam wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu képp ku ngeen gis ne gimiñam ma nga cay tudd laa ilaha illa allah kookee bu leen ko jàppe mukk ab noon ña nga xam ne dañ koo noonu woon sax kon jullit ñi bokkuñ ci ay noonam muy tubaab bi nga xam ne ñoo ko jël génne woon ko ba mu gongi ko ak ñoom dafa wax bind ci lu leer nañ ne afawtu an il aadai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmadan lastu adfaaw nee na jéggal na leen wala jëllale na ko bàyyi na leen ngir li tax mu baal leen wala toppante wut ak ñoom mooy ki doxoon digganteem ak noon yooyu muy yàlla sunu borom mu wax ne nit ki ak digganteem ak jullit na ko bëgg rek ngir jullit gi ak lu mu sikk-sikk waaye koo xam ne nag ab yéefar la wala boog noonu lislaam la kooku na ko bañ ngir kéefëram googa wala xeex ga muy xeex lislaam ak lu mu ko mën a defal nag ak bànneex bu muy mën a dabu ci moom ñaari xaside yépp nag daf koo def mu nekk ci forme ay way di ko ñaan suñu boroom di tawassul waaye xalaat yi nekk ci biir mooy soppante ak bëggante ndax diine day lépp cofeel la la ci jëkk mooy bëgg yàlla ak yonent bi jiital leen ci lépp looy bëgg bu loola jàllee kii sa mbokk di sa mbokk jullit nga bëggal ko li nga bëggal sa bopp waaye Serigne Touba dafa demoon ba mën nañoo wax ne romb na foofu te mooy foo toll di bëggal nit ki loo xam ne sax mooy ëpp mooy gën li nga bëggal sa bopp ñaan na yàlla mu xiir ñu ci sopp jullit ñëpp ñaan na yàlla ñuy liggéeyal jullit ñëpp ñaan na yàlla ñëpp nekk ci jàmm waaye ñaan na yàlla jikko ju rafet ñaan na yàlla xale yi nga xam ne dañ leen a war a yar teg leen ci aw yoon dañ leen yërëm làddanti leen bàddali leen fexe ba bu ëllëgee ñu mën a jariñ seen bopp mën a jariñ itam seeni bokk waaye mag ñi nga xam ne it ñoo fi nekk gone yooyu nañu leen weg waaye lay tax wegeel googu mën a am jóge ci gone mooy nawloo gi nga xam ne danañ leen ko nawloo ndax sëriñ Saalihu Mbàkke daf daan wax ne radiallahu anhu booy jëflanteekub xale wala ku néew ay at bul ko beral ab jëflanteyin wala nooy ànde ak moom del jëflanteek moom ni ki ngay jëflanteek mag wala na nga bëgg mag mu aw yoon tegu fa mu war a tegu na ngay jëflanteek mag moomu nee na dee ko jëflantee ak ndaw loolu mooy tax saa yu at ya bare mu mën a def loolu doon mag moo xam ne mag mu baax lay doon ngir jëmm ji moo néew wala boog moo tuuti at yi néew waaye lépp luy nekk ci mag maga ca moom muy dégg gaag yëg-yëg baag settantal gaag mën a teqantal ak yana demee yëpp maga ca xale boobu wax lu amul njariñ wala dugg ci lu amul njariñ wala toog yoxoy neen sëriñ bi bañoon na ko lool bokk na ci yi muy ñaan yàlla musal nu ci mooy xëccoo ñaanante xuloo wanante ginnaaw bañante ak foñante ak di tongwante loolu yépp jullit waru koo def mbokkam leeralal nañu nag ana bu nu bëggee mucc ci yooyu naka la ñuy def dañoo toll foo xam ne ñépp dañoo mel ni man xamuñu te duñu noppi nee na nit ki ana lan la war a njëkk a def bu bëggee tegu ci aw yoon mooy na xam ngir xam-xam boobu kat mooy tax résultat final ba nit ki bëgg te mooy am la muy bëgg ci àddina ak àllaaxira te mën nañ koo tënk ci baatub texe am na juróom benn ci ay jéego yoo xam ne faaw mu jéggi ko soog a jot ci loolu muy sàkku ak di ko fàggu jéego bi ci jëkk mooy na xamlu bu xamee ba noppi te muy xam-xam bu baax bu am njariñ bu ñu war a xam la ca topp mooy na ko jëfe bu koy jëfe it na ko sellal muy defe ko nañu ko waxe ci kem kàttanam bu sellalee ba noppi na doon ku dëddu àddina dëddu àddina nag mooy loo ci am lu mu bari bari lu tax nga bàyyi wala nga def loo waroo loo wartoon a def loo ci ñàkk it lu mu tartar lu tax nga fàggu ko wut ko wutin wu jaadu wut wala wu jaarul ci aw yoon bu dëddu àddina gi jàllee jéego ba ca topp mooy nga yéene ñëpp jàmm di leen laabiire ku tarxiis kuy waaj a tarxiis nga jàpp ci mbaggam ku tarxiis nga yëkkati ko jàpp ci loxoom ndànk fëggal ko mbubbam ma may ko ndox mu naan nga tegaat ko ci yoon wi mu dox ndànk waaye bañ koo yéene tarxiis ga bañ koo sëtëfal wala toog di fuglu nit ngir mu dugg ci ak njaaxum loolu it buñ koy defit nag bu dara tax ñu def ko lu dut yàlla sunu boroom ak yéene kooku aw yiw mu doon lu dëgg ci nun bu jéego yooyu jàllee nag ci la ñuy soog a sañ a yaakaar lii nga xam ne moo di ak texe yéene gu mu yéene woon lu baax nit ñi daana tax muy ñaan yàlla sunu boroom ne yàlla lii xale jóge ci nun di jëm ci jullit ñi na doon aw yiw kese waaye ñoom itam lay jóge ci jullit yépp di war a ñëw ci nun na doon aw yiw ak lu baax kese ay kër nag wala ay daara mënta ñàkk moo xam lu ñuy tudde suufi la wala lu ñuy tudde salafiya wala lu ñuy tudde chiiya wala sunniya wala lum ci man di doon nanu xam te jàpp ne jumaa ju nekk cim pénc buntu kër ya koy wër kenn ku ci nekk la jóge sa buntu kër jëm ca jàkka ja mooy gën a jub ci yow kon boo jógee sa kër jëm ca jàkka ja yoon wa gën a jub rek ngay jaar muy jubal xocc keneen ku jàpp ne nag wala mu am pas-pasu xëy na ne kenn daa war a jóge buntu këram ñëw jaar si buntu këram ñu ànd buñ ko mënee def da baax na ngir àndandoo ga waaye nag su fekkee ne lu gën a gaaw la ak lu gën a tegu ci aw yoon kenn ku nekk jubal dem ca jàkka ja wala dem ca jumaa ja jooxe fa la mu fay war a jooxe saa yu ñu ko jàppee noonu dana doon loo xam ne lu oyof lay doon saa yu ñu ko jàppee noonu dina doon loo xam ne kenn ku ne la di rëcc rëcc ca moom kenn ka dana ca mën a jànge waaye la di ndol la nit dana ko mën a jël man koo jariñoo kon nag bokk yi nanu delloo si xel yi te bëpp xol yi te xam ne kat li nu fi indi mooy wuutu yàlla ci kaw suuf si mission boobu nag ngir nu doxal ko faaw ñu am ay xel yu leer am ay xol yu féex am ay pas-pas yu dëgër ak yitte joo xam ne lépp lu taxaw fi sunu kanam dana nu fexe ba contourner ko wéyal sunu yoon àgg ci fañ ko bëgg a àggale maa ngi nuyu ñëpp nag di balu àq ñëpp di jégglu ñëpp lépp lu ci laal ngëm-ngëm wala yëgiku kenn maa ngi ko koy jégglu lu ci jubakus néew maa ngi koy sant yàlla di ñaan mu jariñoo ko te nu bokk ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu